mbokk yi teewlu Senego TV xibaar bu bees ci mardi bii nga xamante ni moom la ñu xëyaale mu di démission journaliste boobu nekk ca groupe des médias mu di Ahmed dara te yàggul dara jamono yi nu génn mu nekk maire ville Géejuwaay bi démissionné na nag waaye moom la mu leeral ci page Facebook am ci li sabab maanaam boobu démission mooy que ni démissionné na pour convenance personnelle. waaye yàlla dogal na ñu teg ci diir rek beneen xibaar génnaat ci suñu euh, mbokk taskatu xibaar yi nekk Libération online ci benn capture séquence bi nga xamante ni il pare que ce matin xëy na def revue de presse waaye ci biir revue de presse bi bi muy dem bee dugg ci revue lu jëm ci wàllu dossier aji sar ak euh, Ousmane Sonko ci wàllu audio yi nga xam ne moo fuité ca ba muy door lu jëm ci loolu rek ca lañ coupé dugal leneen lu wuteeg li nga xamante ni moom moo doon diffusé moom moom moom moo doon jàll kon ñu mën a jàpp ni mel na ni. ndax xëy na fan yi ak révélation yi am ak Bougane gee Dany mi nu tudd ci boobu le dossier tax na des médias maanaam bañ ñu tudd lu jëm ci dossier boobu noonu waaye ak lu ci munti am lu ñu mën a jàpp daal raison bi ni ci libération dikkee mooy que ni daal ci biir maanaam bi muy dugg ci loolu noonu ci lañ gis ni séquence bi coupé na kon daal mbokk yi moom mooy li nga xamante ni bëgg nañ ko indil ci les raisons yi waral maanaam tey jii ni démission Ahmed Aïdara ca euh, groupe euh, des médias